waaw ndax am lu mel nii mu lay seet ci koñ yombul bëgg nañ ba fu bëgg yem moom waaw waaw koñ bi nag moom yaay borom defal lu la neex laa la wax jiw lii lii lii jéeg bu lan la waaye weeru dara waay njaay eh, alla ba yow nee naa la xoolal yow xoolal bu dara metti yow dafa la saf e bët dee am xiitoo naaj tuuti sa bëgg bëgg bëgg garaawul nee naa la géréel léegi ah. comme loolu noonu waxtaanee nañ ko ba pare mhm. dinañ ko gérer même loolu noonu ñu dajale léegi sax mhm. moom am na lu ñu doon commencé business mhm. mais jaay paak la mais xoolal des fois da koy téye ba wal ba wal la dinañ am dox ak moom yow toogal nga gérer dinañ fa ñëw. Ah, mooy.

kaay leen dama leen soxla. kaay yow yow kan nga am si ñun soxla yow nga xam ni yow ñun rek nga bañ yow yow lu tax nga bañ ñu yow. nga booy ndóoy booy ndóoy ginnaaw ay jàmm te comme que maa leen woon leen kaay leen kaay leen taxaw. léegi ñoo leen taxaw. waaw kay xam nga yéen da ngeen di samay doom. juróomi de. waaw kay ba tey. man juróom. waaw ba tey. waaw kon da ngay saa morom kon dégg nga yow it ngay saa morom. yaay wooy wuy danañu lekk wuy danañu lekk lek. naa la nga génn sa ay vidéo itam mu may tegal ay mbóot yi ngeen seq yéen ñaar kii dana ma masa lekk la añu laa la wax añu waaw kay waaw kay waaw kay waaw kay waxal nag ci sun la waaw waaw kay waaw kay man tey jàmm ma indi yow eh kaay yow it njaay lan la léegi léegi kii mooy ndaataa téli gi ngeen àndal nii kan <laughs> maanaam borom ba da gi ngeen àndal nii daa ko bëgg <laughs> damaa bëgg nga jox moo ko ma fubal ak moom. ma fubal quatre-vingt-dix minutes teg ca prolongation. yow yow yow yow nit nga yow. yow nga xam yow wéroo. sa dabaare bi wérul ay dof ngeen. Hmm. dinañ jël asawat bi dinañ ko jox. ndooy xool nga lii laa la wax. xool nga gaynde gi. xool nga démarche bi sàcc gi gis nga xool nga eh, maa ko xool. Oh. dama ko luk nii. mu yor dàmba gu baax. léegi da nga bëgg ñu placer la fa yow. ngeen placer ba fa. bu fekkee da nga koo bëgg. Hmm. dinañ la ko doxal. wax bi nag du bari. wallaay ndeysaan. boo yoree ñaari junni da ñuy jox. lenn junni dañuy jënd crédit woo ko. lenn junni. ñaari junni. boo ko yorul nag. booy booy yéen booy booy booy nga ñaari junni wala mënuloo ko. da nga mën a seex de léegi booy ndooy da bàyyi ma jox ñaar téeméer. bu ñu nen de. Koundou yow kaay booy. ma ne waaw waaw waaw waaw waaw kaay. léegi da nga may delloo junni bu ko defee ma ma kii. dinañ dinañ la woo téléphone. déet jox ma numéro am ñaari junni joxoo ma numéro am. sama numéro. ay waay Ndiaye. tey bi muuma. kii mooy Ndiaye mouvement nen de. booy mag. lii maa ngi ko dugg si. ay waay tabarkalla waay. kii de damay dugg rek ndeysaan ah muy daagu rek. <laughs> léegi waaye man def naa erreur de man ñaari junne képp laa yoroon képp ah mu naa dox la ñu naan dox rek jar na ko.

kol da nga ñënoo junne bi dama ko man kay fi ma daan denc yëpp nag tutoon dajaay gisuma ci fenn ñënoo nga sa gat nag tey moom ñënoo nga sa gat lan lu may dégg ñënoo la nga sa gat eh ñënoo lan laay def lu may dégg naan amu ci naan amu ci ah ana li ma la yónni bi nga ko joxoon moom la ñëndoo nii toog du loo sama loxo yi ñàkk maa ngi mat

dinaa la topp nee naa la dama laa topp. na ak la luy problème bi. junni laa ko sama junni junni ma ndogu junni sama dépense junni bi. réer dafa wat. man junni dong la. man dinaa fay junni bi. bëgg gi ma la bëgg jaxal nga maa fay ay millions. attends ah da nga koy fay ah dama koy fay. waaw kon baax na kon jeex na kon jeex na jàmm mu hmm. ngi léegi six cent mu ngi nii su ma fi jaaraatee dinaa la jox quatre mille quatre cent ah ok maa ko dugal si junne bi oui ah, ma xoolal après yow. déedéet déedéet kaay kaay non non demal demal. demal demal.